عشاكم الدار أن يلفى نزيلكما يحتاج للغير billahi min alsheytaani rajim yaa ko moom si Demba yaa ma ci yar ci ñaari munaasaba dafa am benn kori yéen sang yi ñu nekk ci sa saalu wéyjur nga xool ma soluma lu bees nga ni ma am naa sa yóbbante jóg waaxu tànk yu dëgër dem ubbi sa armoire jox ma mbubu mu tedd ma xam ni kii lim la bëgg yare mooy def naa la ni sama bopp kon yaral lazi naa la min alxayraati dunyan wa uxra naxwahu qad yaati beneen munaasaba bi ñu ànd Mauritanie nuy julli fajar ma sol pyjama nga ni ma summil sa pyjama bi ma ni la pyjama bu laab ndax mënuñu ko jullee nga nit teg yar ma ci yar boo xam ni danga ma dóor ab yar boole ci nga bàyyi ba ma kàbbar nga ni ma waye na lillaahi maa yakrahuuna sol pyjama jox yàlla sol basin dem gis ministre ba kon si dem ba jumlatul i'tidaal yow la dafa mel ni sax dañoo waroon bàyyi lisaanu xaalu nit ñi te sëriñ bi tontu leen ndax lisaanu xaalu nit ñi moo di lii nuy bëgga def ñiñ ko jëmale ci ñoom sa tedd nga la waaye si lu mu doon sa jomu bopp yaa ko defal sa bopp wax naa ni ku mën a def at tawakkul ala nga waaye def al ictimaadu ala nafsi mooy boo wéeroo ci yàlla sa effortu bopp moom nga gëna wóolu waaye ku la teral nag teraanga ji lu mu tuuti tuuti nga sant ko kon cant gi si yow lañuy jëkk a sant liñ lay sante dafa yàgg sax am na jamono budul woon sa effort kon am na loo xam ni duñu ko bànneexoo xam nga ko xam nañu ko lañ lay sante mooy danga noo fekk ñu bokk ci génération boo xam ni ca jamono booba mag mënu gindi mag mënu leen a waar nga summeeku nëbb sa bopp ni sëriñ nga doonte baat boobu sax neexu la fekk ndaw yi ngay jaxasoog ñoom di leen orienté ba yoonu Kolda bi ma demoon daaw ci sa ndigal am na benn responsaabul bu ma waatal ci yàlla ni ma bis bi ma jëkkee fekkee daayira dama màndi te tey moo fa dàq waaraate kon ñu ngi la ciy sant waaye sëriñ bi biig man de xawma kenn waaye waaru naa man li nga doon wax dem naa ba yàgg ma koy làmbutu mën naa waa lii lan la ba la ma daloon ca Obélix tuuti mu dalaat ma dem place de day waxtaan ba mu yàgg ma ni man teemaa jóg sama ñaari junni yi ma jox ko ko àllarba xamaa dina ko reeloo waaye sëriñ bi loolu ñoo ngi la ciy sant nga am sa kilifa ngeen daje nga xool fa tabaarakallahu lu mu mënti doon palaas beeg organisation beeg yépp sunu xol yi sedd ci nga génne fa tabaarakallahu li nga génne bii xawma kenn waaye nun dey gàmm nanu nun dey naan nanu ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa naan nanu ci leeru cheikh ahmad tijani chérif radiallahu ñun dey naan nañu ci leeru Seydil Haaji Malick radiyallahu taala anhu naan nañu ci leeru Serigne baba Sy naan nañu ci leeru Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy waaye leer googu nag yaa ko def cocktail defaral nu ko ba mu yomb nu alqayta bayna ashiyatin wa duhaaha darsan bihi ra'atil bilaadu hudaaha wa saqayta bilxikami almudiati ummatan atsha lam taftax li gayrika faaha Mouhamad Lamine Aaj moo ko waxoon góor gi waaye maa ashbaha layla bilbaariha liqaau nnaasi laysa yufiidu cheyan siwa alhazayaani min qiilin wa qaali wa qallil min liqaai nnaasi illa li axzi lilmi aw islaaxi xaali jox nga nu xam-xam yéwénal nga yóbbu nga ñépp aljanna yal na la yàlla fay jazakumullahu anna xayran bi atam mi maana al kalim wa dumtum kama rumtum léegi nag lu mel nii ku koy def am na ñu la ci jàppale waaye caméraman yi na ngeen ma baal waay am na ñu la ci jàppale mënuñoo tudd ñëpp mais gannaaw bi président joxe instruction ministre de l'intérieur mu jox instruction gouverneur mu jox instruction préfet bépp service boo xam ni démembrement de l'État la ñoom ñépp tabaarakallaw def nañ ci seen wàll sëriñ bi ni la nit ñi namme te duñu doyal ci yow bu ñu bëggee tudd ñépp fi lañuy yendu nit ñi dañuy jéppi waaye ñu seppi ci tabaarkalla xalifa sàll taxawaayam rafet ñu seppi ci Senelec SDE ci même ba so euh, seppi ci même banque islamique ñëw nañ fi waaye sëriñ bi man dama am lu ma jaaxal ñi ñépp ragal ñooy ñëw fii di la jox sa hadiya mooy waa OFNAC OFNAC ñu ñëw fii ma ni leen a yéen ñëw yépp neex na waaye seen bas bee ci dàq ndax ki nu am zéro faute ci diine ak état indi nañ fi seen teranga waa bank islamik noonu sa mbokk Ousmane Tanor ñëw na fi wax kàddoom indi teranga sa mbokk Idrissa Seck noonu meeru Tiwaawan bi def yitteem xajja bu Gay def yitteem alaaji bàcc jóob noonu nag yi nga xam nag di nii dañ ko fee indi list bi su ma ko tuddee nit ñi dañ may jéppi waaye ñu fi indi nag yépp list baa ngi nii dinañ ko jox sëriñ bi bu ko defee mu ñaanal leen yàlla dañu bañ téye nit ñi muy yàgg mawlaaya am benn mbir rekk bu neex ci sunu xol yi lool mooy jataayu sayida Fatima mi njaboot yépp dañoo àndandoo bëgg suñu dajee ñu wan ñu wan ko moom ni mu tollu ci ñoom parce que mbëggeel gi mu la bëgg dogu gi mu dogu ci yow su ko ci ajjana fekkee bëgg na su ko ci safara fekkee bëgg na te safara du ko ci fekk ndax yéen seen dund mooy aasha qawmun fi jannati l ardi lamma jaawaru lxaqa walxaqiqata fiha jahilu shakka wa taradduda xata adraku lxayba bilbasairi fiha qabalu bisalaaxi kulla nufusin wajtabawha li xikmatin hiya fiha kon hadihi jannatu lkiraami waaye wahal min jannatin min baadaha yuqimuuna fiha wa sa ah? walaqad alimat aljanna annahum la muxdaruun mu ni wala xat alimatul janna annahum la muxdaruun annahum la muxdaruun nee na waaye ñemewu ma koo firi sax ci boppam yëg na yéen seen teewaay am na ñoo xam ni ñooy wut aljanna am na ñoo xam ni aljanna moo leen di wut kon nag si Malick yàlla nag nu yàgg yóbbu aljanna ba am téeméeri at ak ñaar fukk ako des min gayri ajzin wala doofin wala maradin wala faqrin wala kasalin wala xalaqin wala xusnin wa ma zalika ala allahi bi aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sayidina wa xabibina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayuha nnaas wa limaza ayuha nnaas limaza ayuha nnaas li anna rasula muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bu'itha ila kaafati nnaas fa kaana minhum man aman wa minhum man kafar fa ixwat alaqida wa iman alsalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nuxayiikum wa nuraxibu bikum wa nuhanni'ukum ala alleylati almubaaraka allati an'ama alayna allahu biha fa ishna ma'an lahazati almawlid wa ka'annana nara nuura yanbasiq min ajwaa'i sama عشنا لحظات المولد في رحاب المولد وكأننا نراه صلى الله عليه وسلم نراه basiman farihan bi duyuufihi allazina jaau yatalaqanuuna alkalimat alkalimat allati kanat tatasaaqatu wa ka annaha durar min aliyaa lsama li taiyaha uzunun waaciya fa jazakum allahu anna xayran la nurid an nutila alaykum illa annahu la budda min an nuxassisa kalimaatu muujaza li duyufina alkiram allazina atawna min biladi shanqit min mauritania faqad sharafu aljalsa wa sharafu alxudur wa sharafu almustarshidina walmustarshidat li annahum ay almustarshidina walmustarshidat ma lahum illa haza arrajul man akramahu akramahum wa man sharrafahu sharrafahum wa man fariha bihi farihuu bihim idan fa jazakum allahu xeyran ala xudurikum lam yabqa hunaka illa sheyun waxid naam naam naam xayaakum allah xayaakumullah xayaakumullah xayaakumullah lam yabqa illa shay'un waxid muqaabila hada sharaf wa hada alkaram lam yabqa illa shay'un waxid huwa an yati yowm wa narxalu naxnu jamian ila Mauritania li ixyaai almawlid hunaak maakum insha allah insha allah incha allah waaw xayaakumullah xay xayaakumullah xayaakumullah xayaakumullah xayaakumullah xayaakumullah xayaakumullah saxiix saxiix saxiix saxiix saxiix amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin saxiix xayaakumullah xayaakumullah <laughs> ah kon boog mhm. li ñu wax léegi looloo ko mën a fay mhm. mooy bés ñëw ñun ñëpp ñu ànd ak ku tedd kile dem Mauritanie fekk leen fa waa Touba duñu ah, ñu manqué waa Njaasaan duñu ñu manqué waa Yof du ñu la manqué waa Ceneba ba duñu manqué kenn du manqué nañu ko defe woon ca Gambie ja noonu lañu koy defee ca Mauritanie waaye bul fàtte bu Touba dëgg la ah, jërëjëf <laughs> ah est-ce waaw sëriñ bi nee na bu ñu fàtte itam yoonu Tuuba ndax yoon la woo xam ni kilifa ya fa nekk yépp ñu ngi koy yàkkawliku bés bu nekk ñu yóbbante ci sëriñ Mouhamadou Mbacke Wadoud mi mhm. wax na cee wax a wax a ba bu xamul woon tabiaa sëriñ Moustapha mhm. kon ba tey tàyyi na waaye xam na ni loo naan su ma doon la tadxulanna al masjid al haram insha allah aminin hayyakumullah jërëjëfati jërëjëfati si jërëjëfati si yal na yàlla mottali yépp yal na yàlla mottali yépp insha allah du ñu guddal ndax ñépp moom la ñuy démb ca kër ga bu doon aw ñam ñu ni moo doonoon plat d'entrée bi te plat d'entrée moo lay jox appétit moo tax ña fa ñëw démb ñépp ca kër ga fa la ñu jëlee appétit bi ñu am ci leeri guddi gi biig tey nag tey mooy dessert bi liñ fi jële démb ci leer tey mooy dessert bi te dessert baax na ci ñam kon yal na yàlla mott mottali li xalifa wax léegi rek moo ci nekk ku ku bëgg a lim ñépp ñu jéppi la waaye lu ñu limadi limadi wax nga ko démb suñu mbokk yee ca Touba ñu la ëmbal cofeel lañu kër goo dugg di nga fa fekk lu ëpp téeméeri kaset ñu lay déglu na ñu lay dégloo dégloo wu ñu la noonu sax fii ci Tiwaawan kon ñoom ñu ngi fi sa wayjuru bopp ba sëriñ siidi Mokhtar Mbacke yal na ko yàlla yokk wér sa wóllëre bopp sëriñ Bachir Abdoul Qadir moom itam bés bu nekk mu yóbbante yal na ko yàlla gën a sa mbokk bopp Ahmadul Badawi Mbacke moom itam bés bu nekk mu yónnee ay kàddu ak yóbbante démb Cheikhouna Mbacke moo ko fi teewaloon ña fa nekk ñépp sëriñ Mountakha Mbacké mm-hmm. moom itam cofeelam ci yow mm-hmm. kenn mënu koo natt te la nekk foofa mm-hmm. moo nekk Njaasaan defe naa Serigne Sidi Kunta démb fi la fanaan tey jii lu mel nii moo ko téye ba mënu fee dellusiwaat tey waaye mu ni Serigne Mouhamadou Mbacké Wadoud na ko fi nekkal kon loolu moo nekk Njaasaan loolu moo nekk Yoof seen délégation démb Ibou Laye Thiaw ànd ak njabooti sëriñ ba ñëw fanaan fi ci guddi gi ba mu jeex mm-hmm. loolu moo nekk cene ba mm-hmm. Abdoulaye sekk sa wóolare bopp ma nga nële toogal fi kilifa gi xalifa ba moom itam di feddili kóllëreem ak seen jëmm ju tedd jile loolu moo nekk ci ëttu diine yépp ku ne ëmbal na la cofeel ku ne mu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan ndax xam nañu ni li nga leen di defal ci waar wi amul kenn ci ñoom ku ko mën a defal boppam ci biir këram kon seen ñaan yooyu ah, yal na ko yàlla nangu kilifay diina yépp a ngi fi sa njabooti bopp yi yépp a ngi fi képp kuy mustarshid aw mustarshida bu sañoon tey bëccëg bi fii lay yendu ba jant bi so xam nañ ni biig nag yërmande ak ñeewante moo tax nga nga defe ko noonu ndax lu neex du doy mais biig bi ngay joxe ñaan kenn doyalul bu ñu sañoon dañ fiy fanaan ba jant bi ni dang di taataan say kalimaat ba yooyu le waaye xakim moom lu mu def rek noonu la xëy na xikma ba tax ba nga teel a yi nit ñi yow yaa ko xam te ñun ñëpp sentir nañ ko nekk ba ñu demee yal na la yàlla fay yiw njaboot yëpp ngi ni di la xool bëti yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk sa sutura yal na yàlla mottali la sa yéene ci sa njaboot yal na yàlla mottali sa yéene ci sa kilifa yal na yàlla mottali yéene njaboot yeeg kilifa yi ci yow wa ma zalika ala bi aziz sëriñ bi foofu la ñu kàddu yi cant yëpp yég nga ko cant yëpp yëg nga ko sëriñ Abdou Bousso Dia ma nga nele sëriñ naa Mbacke Saliou Dia ma nga nële Cheikhou njaay su ma ko su ma ko tuddul woon bu nu génnee mu poñe ma ndax démb nee na ma sama diggante ak sëriñ bi bu fi kenn dox de mais dañoo bañ a guddal balor nit ñi te ñoo yéen ñun ñëpp benn kàddu moo ñu fi bàyyi muy kàddu yi jóge ci làmmiñam bu sell wile yal na ko yàlla mottali ngeen baal ñu àq ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jàng ayatul kursi jàng suuratul falaq ak suuratu naas ñu tëjje ko asalaatu ala nabii muhammad ñu ñaanalante ci ñun yépp bismillah tabarakallahu xam naa yeesalaat rek yeesal nuyoo yi commencé ko ci sang yu tedd yi soxna Kiné bi ak ñi mu àndal ñépp ak ñi mu bokkal ci famille yëpp nuyu itam tabarakallahu sëriñ Muhammad tabarakallahu Mouhamed Mbacke Abdoul Wadoud moom itam nuyu waale ñi mu àndal ñëpp ci wàllu tariqal muridiya turuq yi ci des yëpp tudd nañu leen comme ni ñu ko waxee ñu nuyu soxna ak yaayam bu tedd bile ak délégation bi ñu àndal yëpp ñu jógee gànnaar ndax boo ne Mauritanie rek dafay xat waaye mu jóge gànnaar parce que l'islam bi bi mu jógee Maroc ci ñetti yooyu rekk fi la sanc fi ñoo tudde biladu Chinguit moo jur gànnaar fi ñoo tudde biladu Sonhaj moo jur senegal ak li ci topp fi ñoo tudd biladul berber moo jur berber yi dem ba ci fleuve du Niger kon nag benn famille rek ñoo fi des ñoo fi daje fa tabarakallahu waaw ah, te na ko góor gi waxe woon rek mooy dellu siwaat haya dawlata al islaami waaw wa dawlata allati yurafrifu fi afaqiha alamu nasri ah. mu mel ni tabarakallahu kon nag ñu nuyu ñëpp nuyu sunu gan yi nga xam ni ñoo jóge Turquie tabarakallahu booleeg Madrid ak ya ca des yëpp te ànd ak Moustapha sunu turandoo eh ndax lu ñuy waxati am na mel ni xaw nañu junju biig rek parce que détails yi du mën a jeexe ci ay tànt ci ay kuur lay mën a jeexe te digoon naa leen ni bis bu ñu demee ba sunu tabax yi pare ba nit ñi am fu ñu dal dinay man di yendoog yéen fii ñu yendu ci daara incha allah waaw waaw waaw ndax loolu la ci waawoon mérité te loolu la Seydil Hadj Malick daan def loolu la Serigne Babacar Sy daan def xëy suba ci njaboot yi mu nga ca daara ja jël téere yi teg ci kaw lalam moom du tëdd ci lal waaw téere yi ñooy fanaan ci kaw lal niñ ko fekke woon ci guddi bu ñu xëyee suba noonu lañ koy fekke waate waaw fa tabaarakallahu kon nag loolu la Tiwaawoon mérité waaw yor naa programme yu bare dafa am ñu may bañ a gêner rek mais sayaati yiwum waaw daana tabaarakallahu ku xeeb barke danga xamul lu xew yonent bi forsam ak mayam ak leeram yaa ngi koy xamee ci allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim ñu bari xamuñu lu ko waral lu tax ñuy ñaanal yonent bi salaatu di ko dellu ci salaatu bu ñuy def ci yonent yàlla Ibrahim war nañ ko leeralal nit ñi Ibrahima moo ko ñaan dafa visiter aljanna gis garab bu nga xam ni xob yépp liñ ci bind mooy laa ilaha illa allah rasulullah moom ibrahim te booba mook jibril ñoo ànd mu laaj jibril lii nu mu deme nii mu ni ko dañ lay wanni la ba ci aljanna ni muy béggee yàlla lay béggee yonent bi moo tax ku xeebul yonent bi xeebuloo ummaam yàlla teral la mu dal di sukk ca garab ga waaw mooy ñaanam ga waaw waaw ca rabbana agfir li wa li walidayya wa lil muminina wal muminat yowma yaqumu alxisaab ñaan boobu mu ñaanal al muminina wal muminaat ba noppi mu wax jibril ni ko duma bëggoon sunu borom may ma ummatu muhammad di ma tudd ndax seen tudd ci man di ma yokk yërmande di ma yokk leer loolu la ko yàlla nangul moo tax ñuy jël di wax allahuma ma ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ko tudd rek mu di ko bégee ca kaw waaw pour wax la yonent bi mayam rëy na waaw noox noonu waaw ñaan la même chose yàlla nangul ko ko moo tax rabbi xfir li wali walidayya wali man daxala bayti muuminan walil muminina wal muminat moom it yàlla nangul ko moo tax mu ne salaamun ala nuuxin fi laalamin inna kadalika najzi lmuxsinin mooy tax salaamun ala nuuxin fi laalamin inna kadalika najzi lmuxsinin pour yàlla yóbbaale la ci barke bi boo jullee ba noppi boo jullee ba noppi nga bind turu noox ci kaw sa jaada bi jël sa baaraam bi teg ci nuun bi mu dellu ci nuun wal qalam waaw jël beneen baaraam bi teg ko ci xaalonk bi ba noppi jàng suuratul ixlaas boo paree boo ko defee noonu ba noppi yëkkati ñaari baaraam yi def ko nii jàng suuratul ixlaas ba yàlla di sellal sa xol ba ila yawmi diin waaw ku nekk ak la la yonent bi sédd waaw lu bokkul rekk bokkul waaw ba ci jibril ba ci jibril day sant yonent bi bay jooy ndax bu ko yàlla mësaan yónni mu mu war a ñëw ci suuf te xaju fi xaju fi ndax na mu tollu ca asamaan sa rekk la toll mais bi yonenti bi ñëwee te yàlla wër ko di yónni ci yonent bi te mënul ñëw ci jibrilul xaqiqi ci barke yonent bi ñu may ko mu nekk jibrilu suuri moo tax muy nuru doxyatal kalbi waaw yooyu yëpp yàlla may ko ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax euh, kullu mri'in yushbihuhu fi'luhu du dëgg wa yundixu alkawsu bima fiihi waaw maanaa ndab bu ne mënul sotti lu ëpp la mu duy mu des nag li mu duy lan la c'est très important gis nga yonent dina la jur wali yu dina la jur nga duyee feneen moo tax bokk ci zurriyatu nasab dafa am lu ko ëpp doole mooy nga bokk ci zurriyatu rool gàddu santu nit naan diwa ma jur nii laa sant alqab yi dafay tardel nit waaw zurriyatu ruux moo ëpp doole waaw mu tax ñaari buntu lañ la ci may boo bëggee bokk ci zurriyatu ruux mooy fa tashabbahu in lam takunu mithlahum ndax inna tashabbuha bil kiraami ribaahu ki nga melul ni moom te ci sa xol nga nangu ni ku ko gën amul la nga mën a roy ci moom roy ko bu fekkee ni nag amuloo ci compétence loo ko man royee fexeel ba gëm ko ndax inna alladina amanu wattabaatuhum durriyatuhum bi imaanin ak nu ñu mën a mel alxaqna bihim durriyatihim waaw waaw moo tax jazaul martaba bokkul ak jazaul jinsi min al amal c'est très important li ngay jëf ñu faye la ci natiiru jëf bi bokkul ak ñu faye la ci natiiru martaba c'est très important ah moo tax di nga gis ku julli fukki at benn nit naafila benn yor yor naafila ba effacé effacé fukki at yi ndax bële dañ ko fayee ci aljazaau min jinsil amal te bii dañ ko fayee ci jazaul martaba jazaul martaba moo lay may nga julli ñaari ràkka ci benn guddi ñu jël ñaari ràkk yi ci guddi gi nga ko jullee aj ko ci laylatul qadri xayrum min alfi shahr mu tax sunu boroom am lu muy attirer sunu attention gis nga def bàkkaar jéggulu bàkkaar bi al istighfar min ad-dam أخف الاستغفار من الذنب أخف من الاستغفار من الطاعة tooñ jéggulu tooñ bi moo gën a simple jaamu yàlla gis sa bopp ca jaamu ba istigfaaram du yombe noonu moo tax lu mat bi bàyyi xel di jaamu walla di julli pour bëgg nit ñi teg lu bët li muy yàqal nit dafay bari waaw moo tax di xàmmee yëf yi dafay am solo gis nga léeg-léeg nga fekk famille yu nga xam ne nga wër fu nekk waaw diw yow lu tax nekkatoo barab sàngam waaw diw yow lu tax nekkatuloog diw mu ni daf ma tooñ te ki muy wax ni daf ko tooñ min ahlil bayt waxuma la nasaban waaye ruuxan xanaa xamuloo ne ahlul bayt kenn du leen bindal bàkkaar ndax li yudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahirukum tathiran moo tax buñ la defee lu la metti sax danga koy jàppe ni dogalu yàlla parce que yàlla du dogal ci yow ngay jàpp ni tooñ na la wa ma zalamahum allah walakin kanu anfusahum yadlimun moo tax am na kilifa bu nga xam ni bu amee lu la metti jóge ci moom sax delloo ko ci waraddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya ndax mooy gën a simple ci yow nga di ko mer parce am na ñoo xam ni bu ñu mere rek asamaan mer moo tax ngay war a wattu te moom la yàlla waxoon soxnay yonent bi keroog ba ñu comploté yonent bi moom naa Aïcha ànd ak Hafsa ñu comploté yonent bi ba ñëw perturbé ko yàlla dafa wax ak ñoom lu leer in tatuuba ila allah faqad sagat qulubukuma waaye wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawlaahu wa jibrilu wa saalihu almuminin walmalaikatu nag baada dalika dahir waaw boobu ful fu ko nit di attane te li gën a yewu yéeme mooy bim ne wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawlaahu wa jibrilu man nga comprendre mais wa saalihul muminin booboo garaaw ndax saalihul muminin ci aaya bi mooy abou bakr bi jur aïcha ak omar ibnu alxataab bi jur xafsa ku sa baay bi lay jur opposé yàlla opposé la jibril opposé la malaaka yi opposé la foo jëm moo tax am na ñu nga xam ni ku nekk ak ñoom dangay teey boo nekkee doomu nabi baa nga nekk doomu wali teeyal boo nekkee soxna wali baa nga nekk soxna yeneen teeyal waaw yaa nisaa an lastunna ka ahadin min annisa mais daf ko charte in ittaqaytun gravité bi ëpp na li ñu fokk ñun dañuy defe ni buñ ne yaa nisa annabi jabari yonent bi rekk la wax déedéet gis nga am na ñoo xam ni képp kuy génne ci seen kër mem boo dee mbindaan na nga def ci sa xel ni bokkul ak mbindaan yi ci mbedd yi lastunna ka ahadin min annisa in ittaqaytun waaw looluy tax sunu boroom wax yonent bi bu mu fase jabaram c'est très important pour deux raisons raison bu jëkk bi mooy bu fasee soxnaam bu fa jógee rekk yam ak ñépp te bu boobaa lastunna ka ahadin min annisa dafay mel ni dafa weddi yàlla moo tax ñu war a góor ndax bañ a weddi yàlla ñaareelu charte bi mooy yonent bi ci boppam ñaan boroomam ni ko bu ma sañoon soxna bu ma jël ëllëg aljanna bu ma fa nekkee nekk ak moom te bu nekkatul ak yonent bi fii ñaan gi dàqu looloo tax ñag yi yàlla ñag jabari yonent bi looloo tax mu ñag leen ñag yu bare yooyu la ndax bañ yéena yu yàqu waaw moo tax bi ci des wax gi mu wax ñi wër yonent bi qul laa asalukum alayhi min ajr illa almawaddata fi alqurba yàlla wax na yonent bi waxal ñi la wër sa entourage nañu sopp sa njaboot cofeelu àllaaxira te bañ leen a sopp cofeelu àdduna ñi ko dégg barewul almawadda fi lqurba almawadda lil axira walmahabba lil dunia xam nga lu tax boo soppee soppu àllaaxira ku yàlla may te sopp ga di dëgg ci yow yàlla def lay booleeg ismul waduud muy accompagner cofeel go bis bu ne nga di ko gën di sopp te doo ko yeb abadan moo tax diggante jëkkër ak jabarit yàlla ñaan leen mawadda parce que xubb dafay changer je t'aime moi non plus, c'est quoi hein? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mais quelles sont ces preuves moo tax cofeelu mahabba nañ ko jox yàlla ndax xaj na ci moom waaw ah. waaye itam même boo ko joxee yàlla jëlal sa distance te mooy jaaral ci yonent bi ndax mooy périphérie bi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni yuhbibkum allah waaw moo tax bëgguñu nga jël mahabba di ko doxale sa digganteeg ñi bokk ci ahlul bayt moo xam dañ ci bokkee nasaban wala ñu bokkee ci ruuxan comme ni yàlla dugale salmaanul farisi ci salmaanu minna ahlal beyt bul fa doxale mahabba te mooy buleen leen nopp ndax na koo xam ni boo ko nobee benn nga xalaat caaxaan ci moom te bàkkaar ëpp ko wala nga seenu jël leen soxna bu mënul a nekk sa pas-pas jaare fa te benn baaxu ci moo tax cofeelu mawadda rekk moo jaadu sa digganteeg ñoom foofu mais bu ci dugal beneen waaw waaw du tere nag am na ay dérogation yu yàlla def mais yonent bi rekk la ko offrir wa mraatan muminatan in wahabat nafsaha linnabi xoolal loolu waaye wa mraatan muminatan la wax waxul kuy taxawaalu nii rekk di jaay booteek yeneen déedéet imraatan muminatan jigéen bu pas-pasam mat la mu doon jikkoom mat la mu doon sellam mat la mu doon te sañse taxu koo jóg leneen taxu koo jóg yonent bi yitteel ko mu yéene ko boppam ndax tarbiyaa ko ci yàlla mu ni yonent bi may naa la sa bopp yàlla nee na yonent bi seet yaay seet in arada annabiyu an yastankiha waaye xaalisatan laka min dunil muminin waaw pour wax la moo tax ku ne xam lan muy gëddaam ak ku ne nga xam lan mooy cëram c'est très important xam nga yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa dafa am luñ ko daan xase di wax ni ni mu tolloo ak ni ko yàlla jox yépp ci ak ay cër te mësuñu ko fekk muy bind lu tax mënul bind la yaarifu alkitaaba ñu ni nan la mën a nekk ci ku day ni moom ñu jox ko nuun wal qalam wax wëlbatiku jox ko iqra wa rabbuka al akram wëlbatiku jox ko ma kunta tadrima al kitaabu wala al iman walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibadina waaw loolu yëpp daje ci moom ñu ni mënula bind loolu nan la mën a nekkee c'est formidable c'est formidable ñu laaj ko yonent bi ci boppam mu ni ku la teral nga teral ko xawma ndax dégg wax bi walla déet ku la teral nga teral ko yàlla ma terale wax jullit yi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi bu yeneent bi toogati bu leen yëkkati seen baat ba mu gën kawe bosam mu ne comme moom terale na ma loolu mayit am na lu ma ko terale bëgguma di bind sama xalima di tiim turu yàlla ci kaw kayit gi xoolal ma loolu nga xam ni lu bokkul bokkul bëgguma di bind xalima gi di tiim turu yàlla ci kaw kayit gi sama ruux ñemewu ko ko xam ka nga amal affaire foofu la yem ñu ni ko lu tax doo way doo way nekk poète yàlla njëkk a tontu sax wa ma allamnahu shi'ra ndax wa ma yanbaghi lahu ñu laaj yonent bi lu nag lu tax doo way mu ni way mënoo paase tagg ba nga xas te danga dul xam fooy defee mubaalaxa benn nga def mubaalaxa ci madaxa baa nga def mubaalaxa ci dam te sama ruux mayuma waxuma la may xay xas nit bay ëppal waaye mayuma sax may tagg nit bay ëppal bi ci des mooy kenn santuma woon pour ma way dañ ma santoon pour ma defar nit waaw c'est tellement fondamental moo tax lu ne boo ko xamee da nga koy teg ci teguwaay mas nañu ko laaj lu tax kenn du la jox sarax parce nga dégg loolu lu tax kenn du la jox sarax àddiyee rek lañ lay jox mu ni sarax mbalit la xaw ma ndax dégg ngeen baat bi walla déet sarax mbalit la mooy lañuy baleel nit ki ci yu ñaawam moom la sarax bi du yóbbu mu ne te yàlla sellal na ma benn façon boo xam ne di jëlati mbalitu nit xajul ci man mu ne boobu mooy bu jëkk bi mu ne bu ñaareel bi al yadul ulya xayru min al sufla ci sarax bi te ku amati sa loxo di tegu sama loxo ci kaw amatul lu dul loxo yàlla yadullahi fawqa aydihim waaw moo tax dafa am ku nga xam ni boo ko xamee ci façon bi nga ko war a xamee rek daa am façon booy jëfante ak moom ci dimension xam nga nit ñu bari ñu ngay soow même ci jàkke yi ci affaire lu malaanu wadifa ñi naan ñu tàllal ko nieeg ñu defe ko nieeg asl bi lan la melaanu wadifa asl bi lan la ci yonent bi la jóge yonent bi def daan def gan gu mu am muy gan gu tedd surtout ñi mu bokkal ci famille ñi ñoo tudde axawaatu rodaa ña mu nàmpandoo ku mu ci gis nga ñëw di ko seet si day dindi kaalaam lalal la ko pour nga toog ci daan na ko def ba di ko defal saydatuna Fatima ndax ni saydatuna Fatima toll ci moom dindi kaalaam lalal ko ndax teraanga ak fonke loolu moo indi malaanu wadifa xaw ma nag ndax dégg ngeen baat bi wala déet maanaa Seydina Cheikh Tijani Abul Abbas Ahmed bi muy commencé di organiser wadifa foofa ca këram ca Fass këram dafa xatoon ñi daan ñëw pour def wadifa bi xajuñu fa ndax ëtt bi dafa xat muy demandé pour ñu defe wadifa bi ci buntu kër gi te buntu kër gi mu ngi ci mbedd mi te kom nit ñëpp fay jaar te seen dàll yi dafay taq sobe te moom xam na ni yonent bi daf koy gane si moo tax mu daan jël kaalaam lal ko foofu ndax bu yonent bi ñëwee sobe yi bañ ko laal fonkeer rek la woon ca njëlbéen ga waaye bi Maodo ñëwee nag lañ ko def lu sacré mais xam na ni zawiya yi ñuy defee wadifa xam na ni dàll du fa dugg kon sobe amu fa koñ bu ñu demee bay laal lal malaanu wadifa bi dafa fekk boobu rekk tahaara bi tahaara ruuxaaniya bi moo tax waaw moo tax li nga gis ku mel ni kuy contredire Maodo na nangam bi mu da bi muy def seyd na Cheikh daanu ko defe noonu lu jar di tey la nit ñi nañuy tey ci kilifa yi ak seeni maratib wolof moo wax ni ku la tungoom nga sut ko la tungoom nga sut ko ne nit ñi di tey man ma leen ko wax Seydina Cheikh sama sëriñ doonte def ma ko doon nëbbu sax ah ok Idrissa Seck en tant que premier ministre à l'époque daf ko seet si ni ko équipe nationale dañu nekk ci coupe du monde ba ñu ngi jëm ci demi-finale da di génn benn àddiye jox ko ni ko duñu bëggoon nga ñaanal ñu bu bu ñu gañewul coupe bi dem ba finaal góor gi ni ko baax na danaa def istixaara bi ba xam fu may jaar ñaan naka la def istixaara bi ubbi istixaara bi pour seet fu muy jaar ñaan bi ñu ni ko bu ñu bëggee gañe nañ dem ci mustafa mu nettali ko nit ba noppi ni ko bu ko ko wax de <laughs> nit ki ni ba ba mu rey ma waaye dinaa la ko wax <laughs> waxin la du jaayu waaw yooyu du jaayu def di yëfu jaamu yu nga xam ni waxtu wu nekk waxtu waxtu laa wax waaw gis nga midi bu paasee rek paase na booyee ba mu bàyyi une mu ñëw une bu passé boye boo mu noppal boppam bàyyi deux heures mu ñëw waaw te ku ne xam ne ni deux moo ëpp un bu deux heures pare na bàyyi trois heures mu ñëw te ku ne xam na ni trois moo ëpp ku la mujj rekk ëpp le la waxuñu ko pour tiitaru nit ñi bëgg di chantage nit ñi nangam Serigne Cheikh mais Serigne Cheikh yabewu noonu ma wax leen ko ngeen xam ni li may wax xam naa ko ndax dama fi dégg ay nit ñuy wax di ngun nguni fu ne naan Serigne Cheikh wax na nangam ma dem ba ca moom ni ko ndax yaa wax nangam mu ni ma mën Moustapha ndax loolu sañ naa ko billahi wal kitaab barke Cheikh Al Khalifa man wallaay ndeysaan dënn bi rëcc Moustapha ndax loolu man sañ naa ko ni ma demal ci ku ko wax ni ko Cheikh nee na da fen te bu ko weddee dinaa ko woo woo la ngeen toog ci sama kanam ma ni ko dangay fen moo tax rekk na nit ñi teey parce nit foog nga am repère man dama foog ni fi ñu tegoon sunu tànk ba tax góor gu tedd gi wax li mu wax yépp ngeen dégg fa ma ko tegoon teggiwu ko Mais où est le problème kon nag li nit ñi bëgg naan góor gi wax góor gi génne wax lu muy waxati li góor gi toog ci kursu bi wax ngeen dégg wax ko ca géejawaay wax ko ca ndar hal min mazid lenn rekk laa ko yërëme mooy mënatul nelaw ndax yaqub soxla na yuusuf wa biyaddat aynaahu min alxuzni soo lekki ne bii bis bu ne ñu wax ci lay sànn bis bu ne ñu wax ci ndax mooy sama jigéen waxuma la ci nesab waaye ci roox waaw ba tax na kon nag ah aha wallaay mu ni wallaay wallaay wallaay ndeysaan ma sang nga te nga wallaay ndeysaan war na dëgg fa tabaarakallah waaye lu ñu ci am rekk moom mi am na ci cëram noblesse yépp a ngi ci moom te li ma leen wax man xam naa ko waaw ba na kon nag di dégg dafay baax te mag ñi dañuy piégé te am na lu dara jaru wax nag man mët na fukki at léegi bu ma ko génnewoon fii rekk àdduna tukki waaw waaye ma bàyyi noonu rekk waaw ndax ah wallaay ndeysaan wallaay Cheikh Tidiane ngi koy wax ci suba naan ma soxna ki ne dee xaalu démb ba ba léegi moo ko jàpp waaw fa tabarakallahu waaw ba tax na kon nag bu kenn jéem a am gêne ma wax leen ko waaw bu fi kenn jéem a am gêne gen baal ma parce que li mu waxoon fii ci course bi la ko waxe woon ni sëriñ Babacar si bi mu fi jógee kenn jàddul naafiq rekk a jàdd waaw waaw c'est la vérité c'est l'éternelle répétition de l'histoire kenn ku nekk nag yaa yaay xam loo bëgg a doon bu ko defee kon nag dafay laaj njaboot yi dunde beneen conscience ku bokkatul rekk bokkatul ku rekk bokkatul koo ci xam ni sa pas-pas def di batterie te batterie bi dafa am énergie bu nga xam ni benn temps rek la mën a servir te bu nekkul batterie bu rechargeable dañ koy sànni ji ca mbalit jëndaat beneen du fi am mukk moo tax te kon kenn ku ne boye boo li nga am nga jàpp ci des na tuuti ma réer leen ah waaw kay wax bi yépp a ngi noonu boo ñu réeree it pas-pas bi du réer waaw c'est ça qui important waaw man li tax ma wax leen ko ay xew-xew a ngi ñëw xaw ma ren la xaw ma déwén la xaw ma déwén jéeg la xaw ma dina ma fi fekk xaw ma duma fi fekk waaw waaw waaye rekk jàpp leen waaw incha allah waxin la waxuma la dem ay barzax ak yi taxul may wax waaw waaw waaw <laughs> maanaam mën na ma fekke ci voyage waxin la waaw waaye sama jigéen bi nag duma ci bàyyi moom <laughs> wal wallaay aha am incha allah wallaay doo ko jox micro ndax li muy wax am na solo de jox ko micro mbay ah waxam naa ko xam naa ko hmm. lépp loo xam ne waroon na ko ci def def na ko ci hmm. Hmm. lu mu yëg ci yéeneem muy ci baayam yi ak ci maamam yi Mm-hmm. ku jaanam wàcc na mm-hmm. ñun nag ñoo ci des ma mm-hmm. ne ko te foog ñu am lu ñu bàyyi xel gis nga waa Sénégal boo waxee il leur faut toujours un bouc émissaire wallaay dëgg la ils boo waxee ñu ne diw diw diw ñu boo waxee ñu ne la waa Macky dëkk bi dafa makki wala dara ma ne bàyyi leen makki Sall tranquille bàyyi leen keneen tranquille mm-hmm. li xew ci Sénégal ak li ko delloo ginnaaw mm-hmm. nit ñi la ci seen bopp wallaay ndeysaan parce que benn jullit yéenewu ci moromu jullitam lu baax wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay te loolu yàlla def ci attaché importance mm-hmm. parce que je crois très profondément en mon âme et conscience que yàlla bu ñu wàccee ci kaw suuf mënoon nañu bàyyi ci moom mais bu ñu wàccee ci kaw suuf c'est pour qu'on approfondissent nos relations. Mm-hmm. loolu laa gëm. Mm-hmm. ñu approfondir suñu relation à améliorer ko. Mm-hmm. parce que c'est ce qui a de l'importance pour le bon Dieu. y a rien d'autre qui ait de l'importance pour lui. voilà su compte mu bàyyi et pour nous apprendre. à aimer la vie. à la connaître. et à la façonner selon les expériences dont nous sommes passés qu'elles soient positives ou négatives. noonu la dëgg. il faut toujours aller dans wallaay. parce que nag sa boroom lu mu la sàkk sàkk war nga fexe bu mu naw la. Mhm. waaw surtout. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. am na lu mu ñu ci won mhm. te démb bi nga waxee looloo ma daanuloo. il nous a donné le bon exemple. wallaay. donc il faut que loolu jullit yi bàyyi ci xew. on parle on répète. Mhm. mais duñ ci bàyyi xel sénégalais ils ont la mémoire très courte. wallaay ah, ndeysaan. loo leen wax tey di nga leen ko répété woon ëllëg. Mhm. te boo waxee ñu ne la ah oui ñaanu ba mag ñaa ngi fi mais jamono dina dikki gis nga bu ñu bàyyi xel ci li ci des. Mhm. gis nit ñi ñuy rendi di wax yëpp c'est depuis des années. derrière mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr. parce que xol yi sell ñuy jëf yi sell. mais c'est la vérité sellul. c'est la vérité. ku ne war na jàpp sa moroom mu jullit ngeen jàppante wallaay koo bokkal tariq wala wala wala wala daayira mhm. war ngeen jàppante yéene leen ci lu baax mais il le suñ ko defoon tey billahi lesi la ilaha illa huwa Sénégal dana mel ni lem boo ko mais bien sûr c'est la vérité c'est la vérité dëgg la malheureusement amul mhm. depuis des années maam yaa ngi wax mhm. góor gi wax na yow wax nga mais boo waxee il entendre la vérité wallaay et c'est ça c'est ça qui est dommage. Mm-hmm. am na loo xam ne foog ñu di ci bàyyi xel. bien te wax naa ko ñoom wax naa leen ko dama leen koy seede depuis daaw. Mm-hmm. nee naa leen Serigne Moustapha lépp lu mu ci waroon liggéey liggéey na ko wax na ko. Mm-hmm. suñ ko jàppee xëyru yu suñ ko jàppul ah gis nga ni Serigne Cheikh de. ma ne ko moom moom fa lay mujjee de. parce que lépp mu lu mu waroon def def. lu mu waroon wax ko na ko. te def na ko yéene bu sell tabarkalla mhm, ndax yéeneem ci njabootam mhm. a am yéene ci njaboot mhm. kon nag am na loo xam ne fokk nit ñi di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te bés buñ ca tolloon gis nga Sénégal kii seen ne sont que les prémices tout ce qui s'est passé durant toutes ces années là ce sont des prémices qu'on tue les gens qu'on les égorge toit c'est des prémices te yow xam nga ko man xam naa ko mais bien sûr donc il faut que nit ñi bàyyi ci xel wallaay il faut pas se trouver des des boucs émissaires que chacun ou chacune d'entre nous cherche au fond de son cœur mm. ce qui est noir en lui hmm. mu extirper ko de son cœur wallaay pour le remplacer par nuuru euh, nuuru Ahmadiyya hmm. ak leeru alquran al karim loolu rek ñu mën a sauver lenn mënuñu sauver parce que bés buñ ca tolloo hmm. mooy jël ñaanu mag ñi nee na ñaanu mag ñi mais bu boobaa mag ñi dañ ci ànd ak seen borom mm-hmm. mu jël ñaanu mag yëpp lem ko mm-hmm. def li muy def ci Sénégal ba noppi mm-hmm. soo ko jëlaat ñaanu la ñaani mais c'est la vérité c'est la vérité <laughs> à entendeur salut wax na dëgg ndeysaan wallaay dafa mel ni jox na jataay bi ay orientation parce que gis nga xol ci la lépp nekk te bu ñu waxee ci wàllu yonent bi big ni mooy beytullahil maamuur kenn ku ci nekk it am na loo ci mën a jël pour man ci tedde teddal ci it ña nga am waaw muy laaj nag teey ak xam li nga am lan la waaw ah gis nga dafa wax baat gis nga jawharatul kamal bi ñuy jàng allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya allahuma yooyu la tegaloo gis nga xam nga ni ku ñuy ñaanal ku toll noonu dem ba allahuma yi di buuxante allahuma salli ala ayni alxaq di buuxanteeg ala ayni rahmati rabbaniya ala talaatil xaq bil xaq di buuxante ndax kenn ku ne bu ne boo sañoon kenn du la jiitu ci yonent bi waaye li ñaan gi am am solo nga jàng jawharatul kamal nga fexe ba jënd ko moo gën ni ngay fekk bijou ci bijouterie naan bii moo ma neex pour sama soxna bi dem jënd ko noonu ngay demee aussi ci bijouterie bu bu ñoom Seydina Cheikh pour jënd jawharatul kamal yaa xam nag ndax am nga njëg gi wala déet wala xamuloo njëg gi ñàkk xam njëg ga moo tax ñu naan la salaatan tuarrifuna biha iya moo tax am na ñoo xam ne jàngatuñu jawhar parce que collier baa ngi ñu ñu takk kenn ku ne yaa xam moo xam jawhara la moo xam alyaqutatul farida la bu mu ci mën a doon wala salaatul fatimiya xamal échange bi rek waaw pour nga mën ko jënd waaw mais mag ñi jàmbaar lañ ndeysaan mag ñi jàmbaar lañ allahumma allahumma allahumma ndeysaan fekk yooyu yëpp ak seen changement yooyu le waaw fekk yaa yaa bi doon ànd ak allah bi yallaahu bi moom la ñu yaa gi jël mim bi mu remplacé ko waaw waaw mu nekk xitaabul jama ndax buñ ne yaa allah rek xitaabul fard lay doon ñu bëgg ñëpp dugg ci moo tax ñu ne allahumma dugalaale ñëpp waaw mu nekk xitaabul jama moo tax nag baat bi ñu wax dafa am solo xam nga ci yow baliski ba jàngal nañ leen anasir yi ak seen juddin wax leen ni ndox mooy taaw safara moo ca topp ngelaw mooy ñetteelu tofo suuf mooy caat waaye itam duñu mujj sonn sunu boroom dafa mujj jaaxle lu tax caat ak ñetteelu tofo bi mënuñu juboo suuf dafa mas di xuloo ak ngelaw rekk ba yàlla jaaxle nag laaj suuf ni ko lu tax ngay xuloog ngelaw jamono bu ne suuf wax ngelaw yàlla ni ko ngelaw dafa fumiste moo tax mënuma ànd ak moom mu ni ko ci nan mu ni ko bu tàngaay jotee bu uppee ma ni safara la àndal te bu seddee mu upp ma defe ni ndox la àndal foog mu wax ma fu mu féete waaw kenn mënul nekk bay na bay na waaye yàlla àtte leen mu ne ko boo ko boo moom rek dafa fekk mu des ci tabiaam bu ngelaw desee ci tabiaam yow suuf nga des ci sa tabia foog ngeen di xuloo ndax bu boobaa ngelaw lu ko yóbbaale day yomb loo tax bu safara ñëwee yóbbaale ko bu ndox ñëwee yóbbaale ko ci tàngaay walla ci sedd waaye bu nekkee ci risaala nag dootul boppam inna arsalna riyaah waaw foofa nag kenn dootul tudd sa morom ku ci ne la ngay def ordre bu jóge ca yàlla la waaw waaw tax rekk yooyu mën nañoo jàngale li ci des yëpp waaw gis nga kum mën a doon loo rafet rafet yéene fexeel ba looy dox na fekk ne risaala la fekk ne risaala la bu ko def mukk teg ko ci tabia kese kese waaw ak rafet njortu kese kese moo taxoon góor gi daan ñu wax toujours ni Moustapha gàntal moo gën juum waaw waaw bu ko defee kon nag heure baa ngi dem de Seyid Muxtaaril Konti ndeysaan daam ngi laaj sama mbokk mi léegi <laughs> ni nga wax sama mbokk mi mu ne ma dafa am gàllankoor moo tax ndeysaan maamam yu baax yooyu leen seen cër yépp mooy ku nekk la nga doon ñu nangul la ko su nga boo fexee ba ku nekk la mu doon nga nangul koko rekk yàlla yokk la waaw moo taxoon Maodo ci modestem mu ni saddaqtu kulla waliyillah waaw jeex na raayan qadrahum bi ayni ixtiraami waaw waaye dafa fekk mu xam leen nag dafa fekk mu xam leen moom Maodo ku di wëli yu rekk xam na la mu ni moo tax ñi ci yàlla am ñépp nag dëggal naa leen te du teree ma féete fi ma féete waaw loolooy tax bu nit ñi dee werante waxin bi Abdul Qadir waxe ak waxin bi Seydina Cheikh waxe ñu naan ku ku ci am priorité ci qadamaya haatani fawqa raqabati kulli waliyillah Cheikh wax ko Abdul Qadir wax ko ñuy werante ku ci am légitimité cheikh simplifié ko ni Abdul Qadir dafa waxee ci alxatmiyatul amma te man maa ngi waxee ci alxatmiyatul xassa cheikh Muxtaaril Kunti bii daal di koy signeel loolu waaw daal koy témoigneel wa tabaarakallahu yu am solo yooyule le o ci kër yàlla defal la sutura yu baax yooyu yépp wàcc ci kër gi sunu mbokk waa Tuuba yile photo ba ma la jox daaw te ni la nga joxal ma ko suma wéyjur ba ca Tuuba ramz la ndax dama am njaboot bu jigéen ki ko denc di sët ci Cheikh Alxaaji Omar il ba noppi tudd turam mais benn nit wax fa wax bu am solo ni sëriñ Moustapha li mu def tey ëpp na sëy kese kese ndax li mu def tey li ci am solo mooy dajale gi mu dajale El Hadj ak Seydil Hadj Malick c'est fondamental waaw c'est fondamental waaw am na ñoo xam ni fexe ba dajale leen ci barab la muy jural nit ñi ci barke kenn du ko xeeb mu mel ni loolu it mooy wóllëre googu seen maam di sunu maam am kook Seydil Hadj Malick waaw moo tax ma jël photo ba rekk jox ko ko te xam naa lu tax waaw te gis nga yàlla li muy def te kat dama ko jënd photo ba ñu bari romb nañ fa buñ leen waxee prix bi ñu ne ah dafa cher ku fa romb ñu wax la photo bi rek nga ni ah dafa cher ba ma ñëw seen ko rek mu mel ni sama karawu bopp yi def ni fireet ma ni dem leen ngeen laaj photo bi lu boroom wax rek ma jënd mu ñëw wax ma ni temps la koy jaayee ma yëkkati ci saa si jox ko ko ba noppi yëkkati cinquante mille francs tegal ko ci waaw ni ko ndax li nga li nga dessiné xamuloo sax lan la waaye gis nga ma jox la ko fii ni la demal nga joxal ma ko sunu bay ba muy kado gàmmoom ñu teg ca ñaari fan ka defoon photo ba indiwaat beneen ni ma bii nag comme jox nga ko àddiyee sama sëriñ mayit mii taalibeem ma jox la bii sama àddiya dootuma ko defaraat nag ila yomi diine waaw waaw moo tax xam lu baax rek moo am solo waaw yal nañu ci yàlla jàppale yal nañu ci yàlla dimbale yal na yàlla aar ñëpp yal na yàlla suturaal ñëpp yal na yàlla defal ñëpp teraanga àdduna ak bu àllaaxira yàlla may leen xasanatan fi dunia wa xasanatan fi l axira waaw waaw